sant suñu yaakaar seexuna naa al Xadim ñoo ngi nuyu bokk jullit yëpp di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen baal àq di baale àq ñaan suñu boroom subaana wa taala mu boole ñu jégal di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar yi sëriñ Tuubaa Seex Muhammadunil Muntaqa yàlla na ko yàlla sàmm te yàlla dëgëral ko te bàyyi ko fi lu yàgg lool te mu ànd ko wér mbooleem ay yéeneem ci lislaam ak ci yoon wi lépp mu def ci lu kawe njortu te ànd ko ak taalibe sëriñ bi di ziyaar bu baax rakam ju baax ji itam di sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad moom bi nga xam ne mooy jëwriñu ko Cheikh Abdoul Ahad moom it di ko ñaanal li ñu ñaanal magam jooju muy yàgg fi lool te ànd ko wér moom itam ay yéeneem yi mu am ci liggéeyal maamam ak waajuram wa Cheikh Abdoul Ahad mu def ci lu kawe njort ci ànd ko ak mboolem njabootu Cheikh Abdoul gi ak taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ak jullit yi di siyaare mboolem njabootu Sëriñ Abdoul Ahad gi ak fu ñu ma a nekk góor ñi ak jigéen ñi bàyyiwuñu kenn di mboolem jullit yëpp eh, di siyaar sang yu baax yi ñu toogal fii ci jataay bi di tàmbali ci Cheikh Abdoul Ahad eh, moom Sëriñ Hamsatu moom Sëriñ Abdoul Ahad ñu ngi lay ziyaar sëriñ bi bu baax sa bisub maam bi nga xam ne moom ñu taxatu ak fii di ko waajal di siyaare Serigne Mbacke Diop xodar mi fi jóge sànq euh, moom itam macha allah kàddu yi mu fi jotal leer na naññi euh, yaakaar naa ne dàkkantale wuñ ko dàkkantale wuyu na tur woowu di koo xam ne xam-xamam euh, tax na sax ñu jàpp ne ab yonent la kon nag ku ñu dàkkantale ci moom noonu mu indee fi lii itam loolu laa xar wax di siyaare sëriñ bi sëriñ abo moom sëriñ Bassirou Anta Niang bu daarul Moxti xalifa daarul Moxti moom it ñu ngi koy ziyaar bu baax way juram moom itam di kóllëre sëriñ Abdul Ahad bu baax di borom xam-xam ku bind lu yaatu ci yoon wi moom it ñu ngi koy ziyaar di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ko wér di ziyaar daal mboolem jullit yi ak seen bi nga xam ne tey moo ñu dalal fii muy Bichri TV sëriñ Xaadim sekk ñu ngi lay ziar di ziar mbooleem ñi nga àndal liggéey bi euh, Cheikh Abdou Lahad kon daa mel ne dañoo ne ci waajtaayu bisub màgg muy bisub jàmbaari jàmbaari ni ko xalifa général de Murid tudde woon sëriñ Muntaqa joxe woon tur woowu ne Cheikh Abdou Lahad noonu rek la ko mën a tuddee muy jàmbaari jàmbaari muy Cheikh Abdoul Ahad ñu waajal bisam bi nga xam ne kere ba mu feeñee jamono la way juróom wa ànd ak mbégte mu yaatu woo mag ñi ne leen ñaanal leen ma ko mu yàgg fi ndax damaa am ci moom yaakaar kenn ku ne gis na yaakaar ji tasul ndax da cee tegoon bakkanam eh, kon tey jii ku ne xam na li waral waxtaan wi te mooy wisaare ndonal xam-xam li nga xam ne suñu mag ñu baax ñi bàyyi woon nañ ko fi ak itam man cee waaru ci seeni jëf man cee roye itam ndax ñu nekk ay roykaay yu mag di ay góor yàlla yoo xam ne dañoo jeexal seen dund gépp euh, taqoog ndigal yi borom bi subhaanahu wa taala ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ni ñu fi bàyyi ko kon taarix bind na seen jaar-jaar yi ci mbooleem makaarimal axlaaq jikko yu baax yu sell yi ci wàllu muñ tawakkul al asmu di dogu wéeru ci yàlla topp borom bi subhaanahu wa wante yërmaane ju ñu ëmbal mbindeef yi ak dox bokk gu matale sëkk ànd ko cofeel loolu lépp taarix bindal na ko suñu mag ñu baax yooyu Euh, mu mel ne kon ñoom liggéeyal nañu xeet wi xeetu lislaam liggéey yu màgg a màgg yu rëy rëy liggéeyal yoon wi di yoonu murit liggéey yu màgg wante man nga ne liggéeyal rek ah ak doomu aadama ci boppam rek ci ba mu am ay loo xam ne lu ñu mën a teg loxo la lu yaatu yaatu kenn ci ñoom ñooñu nag tax ñoo toog fii muy jëmm ju màgg ju tedd ñu koy wax a Cheikh Abdoul Ahad di jëmm joo xam ne ju wéet la jëmm ju ñàkk moroom ci ay xeetam ay nawleem jëmm joo xam ne boo ko xoolee ci wat wet yu bari danga gis ci moom ay jikko yu sell yu bari yoo xam ne mënu su ko lim jëmm joo xam ne dafa tayle ak dundam gépp da koo tayle ci liggéeyal lislaam ci liggéeyal jullit ñi liggéeyal waajuram wu sell wa Cheikhuna Ahmad al Xadim euh, jëmm joo xam ne liggéeyam euh, dundam gépp da ko sacrifice ci liggéeyal murit yi wante ci liggéeyal rek euh, xeet yu mu doon dund ci liggéeyal réewam jëmm joo xam ne dafa jaay bakkanam yàlla jaay bakkanam yonente bi sallallahu alayhi wa role bi ko waroon ci xeet wi ci réewam rôle yépp suyee na ko ba mu ba mat sëkk sëkk sëkk dara desu ca muy koo xam ne lislaam duutu ko laajte réew mii di Sénégal duutu duutu ko laajte muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu doon koo xam ne ku daan jël ay décision yu ama am solo la yu metti yu tar décision yoo xam ne jàmbaar rek moo ko mën a jël wéy ak moom te daw ko def lu xattali xeet bi nga xam ne moom la ko sunu borom subhanahu wa taala wàcce kon jëmm jooju sëñ Abdou Lahad wamat aw nitam ci gëm yàlla wamat aw nitam ci lislaam jànkonte ci lu bari lu bari ci ay jafe-jafe waaye lépp mu yanu ko sëñ Abdou xam li ko tax a jóg bu wóor a wóor samp ay bëtam joyal ko ci loolu gëstuwul ndeyjoor gëstuwul càmmoñ di gaynde goo xam ne euh, li ñuy wax rek gaynde gu mara naan mbott yay sab ca déeg ba du ñu ko tee naan suñu jàmbaar ji noonu la meloon li nga xam ne moom la tegoon bëtam tax koo jóg dara mënu ko ci woon a dellee gannaaw kon kooku lañuy waxtaane tey jii genn anam ci anam yi nga xam ne doon na ko liggéey muy liggéey bi mu liggéey ci wàllu xam-xam loolu fekk naa sama gaa yu baax yi indi ci ay tomb yu am a am solo wante géej la kenn ku ne tefes gi nga xuus rek ngay xam du jeex mukk ci ay liggéeyam wante mën naa ne rek euh, barab bii ñu toog firnde la ci benn la ci rek ci bu ñu ne woon sa Abdou Lahad ak liggéeyam ci xam-xam muy fii ñu toog di ñu koy tuddee daaray kaamil muy bibliothèque bu Seexul Xadim loolu képp ku ko liggéey buñ nee la liggéey nga ci xam-xam yaakaar naa ne kenn du ko weddi te dara taxutoon mu def ko lu dul xañtu euh, jeexeetu way juróom wa xër ci lool am ci yitte ju kawe rawatee na nag ci téere bii nga xam ne mooy jóge suñu borom jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xeet wi te mooy alquranul karim di nga xam ne mooy ndabal xam-xam yi mooy ndey xam-xam yi liggéey bu kaay bi nga xam ne liggéey na ko ci ndax xam na ne way juróom mu sell wa alquran rek la defoon muy kerkeraanam di léppam bàgg ci suñu borom subhanahu wa taala moo tax gannaaw ba mu jaaree fi ñëpp jaar ci jàng ko ba wattu ko bind ko jaar fi ñëpp jaar ci jàng xam-xam ba am ci lu doy sëkk tax na mu jóg taxaw ci liggéeyal alquran moom ñi nga xam ne Sëriñ Tuubaa nee na man kaana xaadimuhu zaka lahu al ilmu wal amalu wa siyamu képp koo xam ne yaa ngi taxaw di liggéey liggéeyal alquran sa xam-xam dana sell say jëf sell say jikko dana sell eh, mu daan ko bindlu lu baree bare moom sëñ bi tàmmalee ko ci njabootuk sëriñ bi seet ñi seen loxo gën a rafet mu daan leen teral di leen taxaw di leen toppatoo ngir ñu mën a def seen liggéey muy bind téeréb suñu borom bi daan leen jox ay addee yu am am solo di leen wutal depaas waaye di leen wutal ay koddaay yu riis ak yeneeni mbir yoo xam ne dana sedd seen xol ngir rek alxuraanul karim euh, loolu moo taxoon ñu dem dem ba nga xam ne kaamil yi mujj na bari lool di rot di wàcc ci moom bis bu set ba ay magasinam fees dem ba xajatul ci këram xasaayid yi di ñëw noonu moom it tawaalif bi seelu xadim yi di ñëw mu tax mu ñëw nag ne lii kët jot na sëkk ñu wutal ko kër kon loolu mooy sababu mu ñëw fii ci penku jumaa ji daggal ko fi kër gu mag gu toll nii muy kër alxuraanul karim loolu bi nga xamee ne turandoom wa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu sëriñ Sohaybu eh, bindal na ko téere bii sëñ bi doon wax sànq te muy bi nga xam ne ci la dajalee dénkaane sëriñ tubaay yi ak leetar yi mu ko bindee baagal yàlla def mu mool ko te mooloo ko Dakar ñu mool ko mool bu rafet bu set bu mucc ayib ba mu ko gisee mbégte ma mu ci àndal ci rafetaayu mbind mi moo ko xeertal ci mu ne fak kon day wut ay moolukaay jënd ay machine ngir ñu ñëw fii andi ko fii ci barab bi mu xam ne ci la doon liggéeyee eh, muy ci këram di fa mool xasaayid yi fi mool taalif sëriñ Tuubaa yi ak taalif yi ñu taalif ci moom yàlla def na yaakaar naa ne fii ñu toog eh, gis naa fi koo xam ne bokk na ci ñi nga xam ne ci ñi yoroon liggéey yooyu ci la bokk Euh, muy doomi sëriñ Afe Ñang kon loolu tax mu ay machines yu bari ci jamono jooju yaakaar naa ne àggoon na ci juróom-ñaari machine te juróom-ñaari machines yi euh, boo xoolee valeur wi nga xam ne mën nga ne mën nga ko xayma rek àggoon na ci 43 millions 500 mille soo ko dajalee ci jamono jooju kon ku ne ko xam ne kooku kon xam-xam ñoroon na ko lool mu wogu jëm rek ci ngir tabaxal sëriñ bi tabaxal alquran maktaba bu am solo bu rëy bi nga xam ne làmboo na ay saal yu bari euh, yaakaar naa li nga xam ne financé nañ ko ci ci ay millions loolu du jar lim ndax lim bu bari la bu baree bare bari euh, te la doon jubluwaayam moom ci boppam wax na ko bi mu liggéeyee ba noppi daara ji bindu lettre boo xam ne ko publier ñëpp dégg ko ñëpp gis ko mu wax li tax mu liggéey daara ji la ci jiitu rek mooy matt li bëgg-bëgg yi way juróom wa di Serigne Touba ci wisaare wooteem lislaam wisaare itam xam-xam sariya ak mool kaamil yi kon loolu la wax ne mooy li tax mu tabax daara ji def ci million yu bare nii wax nañ ne téere yi àggoon na ci téeméeri junniy téere euh, ak fanweer ak ñaar waaw téeméeri junniy téere ak fanweer ak ñaar matoon na ko ci jamonoom cent onze mille euh, trente-deux kon loolu lu lu lu bari lu bari la lu yaatu la jaral ko moo taxoon mu daan yónnee bitim réew ci réewu araab yi ci Europe fépp ngir di fi wut ay téere xam-xam ngir di ko indi fii ngir kenn bañ am mar maru xam-xam ba tax la ngay génn réew mi kon loolu liggéey bu am solo la ci wisaare euh, xam-xam ngir ñëpp mën cee jot ci jot bi jàppandi jàppandi mu mool ci lim bu bari lool ci ay kaamil yu xeetoo yu bari ci ay mbind yu ràññiku yu rafet ni nga xam ne noonu la moolee ay diiwaan moom itam yu bari ci wàllu xasaayid yi ndax bu dee ci njabootu Serigne Touba gi mi ngi ko tàmbalee ci kaamilu Serigne Mouhamadul Moustapha ak kaamilu sa Mouhamadul Fadil waaye kaamilu sëdd yi itam mu mool ko naka noonu ci xasaayid yi diiwaan fulkul masxuun mool ci junni junni diiwaan loolu di lu am solo diiwaanu al muqayada ayaati al mu mool ci moom itam Eh, juróomi junni juróomi junni loolu itam di lu yéeme ku ne xamoon na si Abdul Ahad ak xëram xamutoon defantu day def rek baa mu baax ni mu ko waxee woon loolu moo tax itam saadatul muridina it di ab diiwaan mu mool ci juróomi junni nooru daaree ni mool ci juróomi junni naka noonu diwaanu salawaat mool ci juróomi junni diwaanu silkul jawahir nga xam ne téere bu am solo la bu bari ay xam-xam ci biir sëriñ ëmb ko ci moom itam mu mool ci juróomi junni di lu am solo diwaanu almuqayada bi xayril ayat alquraniya moom it muy xasida yi nga xam ne sëñ bi da koo def waaye sukkandikoo ko ci ayat quraan yi moom itam mu mool ci juróomi junni alfiq ak tawxid muy téere xam yi nga xam ne dafay jàngale eh, lislaam ponk lislaam yi jàngale tawxid jàngale tasuuf moom itam mu mool ci juróomi junni kon kooku yaakaar naa bu ñu nekkoon Cheikh Abdou Lahad ak xam-xam ku ne xam na ne kuy def loolu sa liggéey ci xam-xam benn liggéey kawetu ko benn liggéey kawetu ko waaye yëmu ci mu xam ne itam ne eh, ay téere dajale ko rek taxut njariñ la bari noonu balañ ko mën a jariñoo fokk dañ koy jàng loolu moo tax ñi nga xam ne dañ doon yëngu ci daara yi ñëpp mu daan leen jàppale wante loolu doyu ko mu ne day tabax université bu mag boo xam ne université Sëriñ tubaa lay doon boo xam ne lépp lu waaye bëgg a xamati fii ba ci réewu araab yi du jar nga di fa dem da nga ko mën a xamee ci université boobu en 1987 mu taxawal université boobu kon Cheikh Abdou xamoon na baax yéene way juróom yi ci ne Sëriñ Tuubaa amoon na yéene sos ab université islamique boo xam ne mboolem ñi sàkk xam-xam dañ fay sàkkoo ji xam-xam loolu itam mu daan ko doxloo mbokkam ñi di sëriñ Mbàkke Buso ba tàmbali woon na ci def ay yëngatu kon li desoon ci naa li sëriñ Tuubaa yi loolu la cee bokkoon te sëriñ Tuubaa moo wax ci xasiida ne bil Mustafa lii banal quddus madrasatan biha yazulul ada wal jahl wal kabd ci daraja yoon sallallahu alayhi ci la yàlla tabaxale daara joo xam ne ci la réer ak lor ak njàqare di jeexe moom nag mu fab bëtam teg ca loola si yéene mébétu Sëriñ Tuubaa boobu mu àggale ko tax suuf su bari soo xam ne euh, tey yaakaar naa ne ñu bare bari buñ si jotoon am na yeneen xalaat yuñ ci am yu jëm ci àddina lu bokkut ak lee mu ca def waaye fekk na moom xam na ne yàlla rek moo am njëkk lépp lu waaye jaay jaay ko yàlla moo gën moo tax mu jël loolu delloo ko suñu borom subhaanahu wa taala defal ko sëñ tubaa defal ko murid yi defal ko jullit yëpp ngir bu ëllëgee eh, lu àddina yàgg yàgg yàgg ni ko Seex Muhammadu Muntaxa waxee eh, ñu ma dem ba dab réew yi eh, arab yi saudi ak yeneen réew yu arab yi lislaam yi yëpp yu jàngale xam-xam ràññi ko ca ñu dem a dem dem ba dutuñ leen ñëwee ci fànn googu kon mu def li jëkk li gën a am solo te mooy wut barab boo xamante ne bii dana yàlloo ak li mu bëgg ni ko waxee rek xër gi mu xëroon tax na daw def mukk lu tuuti loolu moo tax tey jii naal yi fa xalifa général de murid naal murid yépp dugg ci te yëngoogut loolu moo lay xamal ne kon moom gi gisam dafa sori woon lool kon musta dañ ji am yitte jooju di taxaw ba tàmbali woon ko liggéey ci liggéey lu am solo bu doon ñeenti xaaj benn xaaj ba mel na ne liggéeyoon na ko ba noppi comme ni mu ko waxee woon te noonu la ko jëfee ñëpp teg seen bët ban tàmbali ci di ca jàng muy loo ama am solo mu def ca sam bu bari boo xam ne du jër tudd wante euh, lim bu mag a mag la kon Cheikh Abdou nekk koo xam ne géej la ci wàllu xam-xam ndax xam-xam balaa nga ko mën liggéeyal da nga da koy xam moom nag dafa xuus ci xam-xam ba xam luy njariñul xam-xam moo tax mu xére woon ci noonu yaakaar naa ne xasida yi ma dégg léegi sëñ Mbàkke Jóob wax ko fi loolu rek doy na ci firndeem ci wàllu xam-xamam xasida yoo xam ne da ko defal sëriñ Tuubaa di ci jaayante ak moom ci jaayante ak moom ni mu ko waxee ataytuka al yawma bil inqitaahi kulliyati yaa xaadimal mutaahi fa sëñ Tuubaa yemoon bi mu jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom bi mu ñëwee fa la tàmbalee lahu dahran yaati wa ruuhi wa jismi wa xidmati wa rahim wa jismi wa kulli bila sukli wa kulli jooju moom fi la tàmbalee ah tey tukkal yow bi leen xitaay kulliyati jox naa la tey te amut lenn lu ma ci teqe sama lépp kon xasidi googu di xasidi googu goo xam ne yaakaar naa dem na ci ñaar fukki bayit ak benn bi ma ko xoolee tey jii rek la la soog a comprendre la soog a jëli moom day daa mel ne li mu fi am ci at xasidi googu noonu la toll ñaar fukki at ak benn ñaar fukki bayit ak benn la xasida gi taxawe euh, xasida gi mu mu doon lu ñor ci moom ndax xam ne liggéeyal Sëñ Tuubaa ku raw ci nga rawee tax na bi mu koy def nekk gul xalifa de wante dara ñaan bokk ci ñiy liggéeyal Sëñ Tuubaa ñu koy liggéeyal wa dummani ila alladina xadamu janaabaka sharifa ñu ne janaabaka al aliya yaa muqaddamu yaa yàlla nga ma boole ma bokk si ñi ñi ñi lay liggéeyal ñi liggéeyal ci sawet kon loolu lu am solo yaakaar naa ñaan ko suñu borom nangul na ko ne ko nag liggéeyal la yaatu na waaye nag ma jagleel nag liggéey boo xam ne man kese maa la koy liggéeyal waaye nag waaye bu ma ci gis sama bopp ma ci parparloo bu ma ci def leneen lu dul rek xam ne yaa ma ta defal ma defal la ko wa xussani bi xidmatin laka bila tasannuin wala ana in musjala loolu yaakaar naa ne ku ne xam na ne su eh, suñ tubaa nangul nag ko wax defal na ko lu ko kenn defalut xasida yi di xasida yu bari wante xasida gi moom it dégg naa sëñ wax ko sànq ñu tënkee ko benn baytu sëñ tubaa eh, moom itam muy eh, xanaa 34 bayt muy fanweeri bayt ak ñeent di lu am solo lool ci yaquudu nii li kasrati alqasaidi kawnaka indi maksara alfawaidi bayit woowu mu jël ko moom araf bu ne mu daat ci génnee aw bayit loolu dina am solo mu tàmbalee ci yaa bi nuuri jamaalihi natakarramu wa bi janaabihi wa bi xidmatin li janaabihi nataallamu te lay dem ba ci biir mu naan ko sama tedd nga fii ak fa ñu jëm du dara lu dut nekk seenu njaam nekk seenu liggéeykat ci ànd ak cofeel goo xam ne nëbbuwul kenn du ko nattable xizzi hmm. una wa unaaka kawni abdakum wa xadimakum bi mahabbatin la tuktamu kon moom darajaam ji gën a moo doon bëgg sëñ tubaa rek ak nekk surgëb sëñ tubaa loolu moo tax dafa dem ba ci biir xasida gi ba ci mujj ga eh, mu yamale ko fa ndax day mel ne lim noonu sàkku ci xasida gi am na ko si bi hubbika jaadali bi matalibi sirran wa jahran minka ya mutaqaddimu sama texe ci sopp la andil na ma mbooleem li mu doon sàkku ci lu nëbb ak ci lu feeñ kon sopp gi ma a sopp tax na mbooleem lu ma doon bëgg rek di ko sàkku rek am naa ko euh, daa mel ne xasida gi sax euh, ñeenti bayit yu mujj yi euh, daa mel ne ñu bari gisuñu ko ñuy wax ne bi mu àggee foofu dafa amul jël mel na li mu doon sàkku lépp jot na ko tax mu far ko yamale foofu ñii ah, xay na wax la neen ci jàpp ne xay na dafa euh, bëri dafa réer wala yu deme noonu wante rek eh, li wér te wër mooy moom kon lii de firndeel ne boroom xam-xam la boo xam ne kenn nattablewut la ndax way nekkut lu yomb ah, léegi laa fi dégg yeneen xasida yoo xam ne teeguma ci bët mu ngi rabbi israh li dégg naa sëñ bi wax ko sànq ni ak yeneen tagg yoo xam ne tagg na ko euh, ay murit yoo xam ne dañoo jaay seen lépp nekk ay murid yu dëggal nekk ci wetam di liggéeyal sëñ tubaa te moom képp kuy liggéeyal sëñ tubaa rek jàpp na ne moo la war a delloo njukkal loola moo tax mu daan leen delloo njukkal di kañ di leen bakk ngir ñi nga xam ne yàlla euh, ay ay doomu aadama rek lañ li yàlla jox ñi mu ko jox ñoom itam ñu góorgóorlu ngir mën a liggéeyal sëriñ bi loolu moo tax mu daan def ay xasida di ko jëmale ci ay doomu aadama ngir seen pas-pas ak seen yitte ak seen pasteef ndax ñaare même ku deful xasida itam boo gisee jàmbaar danga ne ko waaw da nga ne ko waaw góor moom nag da leen doon wax waaw góor ci xasida yooyu nga xam ne def na ko jëme ko ci bokk yooyu kon bokk na ci li tegtale ak sappam xam-xam rek muy taxawaay bu màgg bi nga xam ne amoon na ko di dëgëral ñi nga xam ne seen dund gépp dañ koo jeexaloon ci wàllu xam-xam mel na mbokkam ma al mujahid al akbar Cheikh Mouhamadou Mourtada góor yàlla googu nga xam ne li ma liggéey ci xam-xam moom itam kenn du du ko naatable euh, dafa daan woo murid yi di woo jullit yi leen xamal ne kat Cheikh Mouhamadou Mourtada loolu mu ngi def Sëñ Tuubaa la koy defal kon nag na ci ñëpp dugal seen loxo loolu di lu am solo loo xam ne lu mat a roye la ci gis ku def lu baax nga taxaw ca woote ca taxaw ca sa bopp waaye na nga woo ci nit ñi ñu ànd ca moom kon loolu lu mu yàgg taxawe la wante itam doomam ju baax ja sëriñ si Ahmadou Mbacke Gaynde ma moom it ku ne xam ne li mu liggéey ci wàllu xam-xam ci réew mi moom it noonu la defoon woo taalibe yi xamal leen ne leen sëriñ sax Mbacke lii muy def deful ko boppam lislaam la koy defal sëriñ Tuubaa la koy defal kon nag na njaboot sëriñ Tuubaa gépp nekk ci wetam jàpp jàppale ko ci kon loolu itam di lu am solo di wane gu muy wane rek ak bëggam xam-xam ak bëggam xam-xam naka noonu euh, mbooleem ñi nga xam ne dañoo yëngu ci xam-xam rek mel ne rakkam ji di saxi xam euh, bokk moom lépp muy sëriñ bu Mbacké ku ñu xam na ne kër gee mu nekk di Daaru Rahman moo ko laajoon Cheikh Mouhamadul Moustapha ba jot ci teg ko ci loxoom ngir mu nekk daaraam waaye bu noppi mu di ko fekk ak li ko yàlla jox ngir sëriñ Souhaïbou mën a wéyal ab liggéeyam Euh, ba wax nañ ne sax daanaka université bi ci li tax mu sos ko ci la bokk waaw mu sos ko ci la bokk naka noonu ku ne xam na ne seriñ Saliou mu baax mi ku ne xam ne li mu liggéey ci xam-xam li mu yar ci ay taalibe wante lépp itam ci ron sëñ Abdou Lahad rek ci la ko doon def ba suba xel koom si sax sëñ Abdou Lahad la waxoon mu sàkkul ko ko ci yàlla dox ci ay jéego ci saxar itam ba mën cee jot loolu lépp kon day wane rek ne moom Euh, képp koo xam ne yaa ngi noonu yëngu ci lu baax rek dafa nekkoon ci sa wet rawat na ci wàllu xam-xam di la taxawu ci anam gu matale sëkk ba nga gën a ñeme ci li ngay dox loolu itam noonu la doon def ñi nga xam ne ñëpp dañ doon yëngu ci wàllu xam-xam yor ay daara euh, ba ci njaboot gi di leen bégal eh, ku ci jar yóbbu màkka sax mu yóbbu la màkka ku ci jar may wata sax may la wata ngir su fekkee yow yaa ngi yëngu ci wàllu xam-xam gi nga xam ne euh, bëgg na ko ba ah, maa ngi gis benn nettali bi kii am na yenn doomam ci ko doon ñaan dara waaye dana ko dana bindal ma ab kaamil andil ma ko xam naa mu xaw caa yeex bi mu koy soññewaat itam mu ne fekk bindal ma ab kaamil andil ma ko day du ma la ko jox waaw nga xam ne maanaa eh, bëgg gu mu bëgg xam-xam tax na daana ci aju yu baree baree bare kon suñu Abdou Lahad yaakaar naa ne royukaay la ci wàll googu bu baax a baax a baax ni mu nekk royukaay ci mbooloo ñu baax yëpp waaye xam-xam la rawati nag eh, ndax moom léppam lu ma teg loxo la waaye xa ci raw eh, ba tax na wàllu euh, téere yi ni ma ko doon traduire euh, ngir xam na ne së sëriñ bi li mu bind wërtu yem ci ay wolof rek wala ay arab kese wante mbooleem langue yi ñi nga xam ne dañuy làkk ak langue bu ñu mën a jël war nañoo xam sëriñ bi euh, yon yi mu jaar wan la loolu moo tax mu daan ci sonn boo ko mel na sëñ Sàmbay ak yeneen ñu mu leen booleel ñu ànd di traduire téere yi ci yeneen langue yi ngir ñeneen mën cee jot loolu itam jamono jam koy def daanaka ñu bari xamuñu yoon ne loolu war maa nekk la waaye kon euh, dara na wane aw yoon rek ku ne gis na kon ne fi mu toll nii kon loolu war nañ koo pousse mu gën a jàll bu baax a baax a baax a baax ci gën di traduire yu baax ci langue yëpp di ko bind ci mbind yi nga xam ne itam moo gën a yaatu ci àddina bi ba waaye nekk boo bëggee xam sëriñ bi man koo xam ci lu yomb dugal ko ci mboolem barab yi nga xam ne dañ ci tasaare ay xibaar dañ ci tasaare euh, xam-xam waaye ma nekk mën cee jot loolu yaakaar naa liggéey bu ko ëpp solo amul si yëpp laxaat joxoñoon na wane woon na yoon wi ni nga xam ne noonu la wane woon yoon wi ci mbooleem liggéey yi ñu war a liggéeyal sëriñ bi amul benn bu des ba tey jii man naa ne ñëpp ñu fi jaaragoon ci gannaawam ci ay naalam rek ci la nekk di ko àggale mu të àgg kon gis-gisam moo rëyoon moo xootoon moo yaatu woon ndax xëram ci sëñ Tuubaa kon daal Cheikh Abdou Lahad euh, daanaka li ñu fi wax lu ñu baamtu rek la xam naa ñu ngi fi wax nañ ko ba jàll wante Euh, sëriñ bi euh, luñ ko gën a wax ah, di si gën a jariñu moo ko alxuraan yam rek du du du sàppi mukk waaw loo ko gën a jàng di ko gën a mar di ko gën a bëgg kon sëriñ bi itam noonu la demee Cheikh Abdoul Ahad loolu la ko yàlla defal yàlla ñu ko yàlla fayal euh, Cheikh mun Mountakha mi nga xam ne moom itam ku ne xam na ne si Abdoul Ahad rek la ñuy fàttali jamono ju nekk ci ay yëngutoom yëpp ba tax na bi mu ñëwee liggéey bi bi gën a rëy ci liggéeyam mooy liggéey bi Sëriñ Abdoul Ahad tàmbali woon fas ko àggale ba keroog mu tax xeer wa loolu la wax jamono ju nekk loolu lay fàttali kon moom it yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na ko yàlla wéral e, dooleel ko kàttanal ko ba li nga xam ne yéene na ko ci xam-xam yàlla na ci fekk lu bare bare bare bare ci barke Serigne Touba ñun ñëpp ñu ànd ko ak moom kon daal maa ngi baalu àq tey jéggulu ñaan tam ñu àgg ci màggal gi ak jàmm e, bokk yi ñëpp bàyyi xel ni sëriñ bi diglee kenn ku ne fa nga nekk nga jàng fa alquranul karim te xam ne ki ñuy màggal gi dara gëntoon rëy Euh, bu mosaan wooteele sëñ Tuubaa màggal gi la muy digle mooy balaa kenn ñëw na jàng ñaari kaamil daf benn addi rasulullah sallallahu alayhi wasallam daf benn addi sëñ Tuubaa boo dee beneen taalibe sax nga def addi rasulullah ak addi sa sëriñ nga gis ni mu yaatale woon kon yaakaar naa noonu donc lañ ko war a wooteele moom itam képp koo xam ne foo ma nekk ci àddina bi euh, donte ñëwoo itam fa nga nekk jàng fa alquranul karim jàng fa xasaayid sëñ Tuubaa yi nga xam ne moo doon léppam euh, defal ko ko addiyee defal ko addiyee yëpp Euh, ñaanal réew mi jàmm ñaanal Serigne Sidi ak i rakam ñoom it ñu yàgg fi te wér te yàlla gën leen sàmm ak mbooleem njaboot gi yëpp itam euh, euh, waaye rek kenn fàtte itam wàllu bernde yi nañ ko bàyyi xel bu baax te xam ne moom itam ku xëroon la ci wàllu bernde te lu am am solo la kenn ku nekk daal fa nga nekk na nga fa waajal ay bernde jox ko say dëkkandoo xamal leen ne bis bis ñëpp laxat la loolu yi mën a fàttali ci ay jukkaam nga fàttali leen ko loolu yaakaar naa dana jur njëriñ lu am am ñu ngi baalu àq te jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.